بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو بسم الله يكفيني أقدار يلاو man laa xam lu waral jotaay bi tey waaw jotaay bi li ko waral mooy dañoo am safar boo xam ne dañ koy def muy saa boo xamee ne màggalu Serigne Touba gi teru na ñu jël bis bi nga xam ne mooy samedi bi ci njëkk tàmbalee bis bi fii jëm Touba ren nag dañ koo jagleel ki nga xam ne kenn la ci ñun Serigne Abdoulaye Thiaw Laye ah, doonoon xalif général des Layènes yàlla dogal i tamit mu génn àdduna bu yàggul ñu jagleel ko suba ba nëgë ne ñu ngi jàng kaamil alxuraan yi waaye dañoo am yéene jël benn kaamil jàng ko dox yegg ba barabam sargal ko maanaam yaatal gi mu ñu fi mas a yaatal lim ñu fi defee ñuy benn ñu wax ne Touba ak fii moo yem ci yéen lu ngeen fa sañ sañ ngeen ko ci dëkk bi bëgg sëñ Tuubaa ba ñëpp xam ko ñun nag ñoo fas yéene delloo ko ci ko ci loolu ñaan yàlla mu taat ci barkeem loolu moo war jotaay bi waaw d'accord merci beaucoup waaw mbokk taal yëpp ñu ànd ni jëm foofu ay njabootam ñu ngi ñuy xaar nii léegi ñu yegg si ñoom ngir ñu ànd doo dem ba ci barab bi d'accord inchallah ala ulasiya dur ran minka ya allah azaray mulasi arjo bi rahmati على أولئك يدر أن منك يا الله مليك يميني وقل مثال يا مليك بلا إساء بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأنت كرديت دار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي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 xabitu sirran ilal jamaati yàllaaw antal asiisu la fi aqibi isati isan yuqal li dulit takrima yàllaaw ajbartali imaakal jabaaru doona liqan كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بلاسي لاخترت يا الله لما أصاب الدم بالبر والسر والرلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدونا سم وخن لي الأجر للجماعة يا الله